bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min asheytaani rajim la hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim asalaamualeykum mbokki téléspectateur yi ma jàkkaarloo ci chaîne yi fi teew te jii te as bi ci ka wax léegi gërëm leen ñoom ci seen tur ñu ngi nuyu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi tàmbalee nuyoo bi ci Mouhamadou Makhtar xalifa général des Layènes ñu ngi siy teg imam Mouhamadou Ndoye ak ñu topp ci ginnaaw ñu ngi nuyu bu baax jaraaf seeni géey ak bépp borom bu tànk ci yoof ñu ngi nuyu ñu nekk ci chambre yi muy magi yoof jàmburu yoof ak fray yoof ñu ngi nuyu bu baax mbooloo membre CD wu APEXI di leen masawu coono si sas bii nga xam ne moom na teg ci seen loxo ñu ngi nuyu njabooti yo njabooti yof ah, comme ni ko sama nattangoo bi waxee léegi as tey dañu ñëw pour def rek une communication de clarification ci mbir moo xamante ne bi ñun ak yéen ñëpp ñun ñoo ko bokk ah mbir moo xam ne bii li ñu gën a loon mooy nekk ci ni APEX bindoo di def mooy néewi wax te bari lu mu jëf waaye tey comme wax ji xumb na ci dëkk bi ñu ñëw rek ko leeralal nit ñi ci contrat bi nga xamante ne APEX ak OMTHIOY signé nañu ko naka la ñu def ba signé ko ak fan la ñu jàpp signé ko eh, yàlla dafa def assemblée générale yu 2013 bi APEX defoon dafa dañ ko tuddoon assemblée de rupture bañ sa génnee ñi defoon benn document d'orientation stratégique boo xamante ne bi dafa privilégié woon ay investissement yu jëm ci dëkk bi ndax mu gën a jëriñ njaboot yi loolu dimbale woon nañu ba ñu defoon tey infrastructure bi tudd euh, Mbeng Cheikh ak bi mujj tudd Maa Ibra bu Maa Ibra boobu bi koy def fekk na place bi mu yàgg fa te kenn def foo dara ñu wax ak suñu benn partenaire financier muy banque islamique ci wàll woowu immédiatement ñu nangul ñu accordeel ñu benn prêt de cent cinquante quatre millions loolu dimbali nu ba nu sumba liggéey boobu tey pare na ba mu ngi nuy indi lu am solo waaye si waxtu wi nu koy liggéeyee dañu dem ba ci digg bi ñu xam ne ñun li nu sumba moo ëpp li nu yor si gafa mu obligé ñu utiliser lenn ci trésorerie APEX ndax ku bu chantier boobu egg na ba deux cent quatre million mais biñ ci laa egsi ñun ñi nga xam ne ñu ngi doon liggéey ci trésorerie bi ñu ngi doon artu CD bi ak ñu ni liggéey def yëpp si jël ay décision pour waajal balaa ñuy egg si waxtu waxtu sangam ñu bañ am ay jafe-jafe si wàllu bi mais yéexaay bi si def loolu dafa daje ak ñu dem ba le mois de septembre deux mille vingt deux ñu xëy seen o wax ne dafay bàyyi day dem faneen septembre deux mille vingt et un. deux mille vingt et un jërëjëf septembre deux mille vingt mais boobu muy dem yemoon na ak APEX yi di waxtaan seen biir si investissement yu mu bëggoon def ci place boobu ndax Senelec ba fa nekk te yàgg fa ak nu ko boolee ak SDE bi ak fi station bi nekk ba doon ci waxtaan ak ñoom ci waxtu woowu ñuy waxtaan ak ñoom si le Sen'Eau dem. mu nekk beneen jafe-jafe bu war a dolli ko ci trésorerie wu APEX yi ah bi ñu soo waxtaanee nag ak CD bi ñu ne kon nag rapidement nañu xool lu nu fa def ndax jafe-jafe ba bañ nekk donc si jàngat boobu ñuy xool lu ñu fa def mu yeex ndax waxtaan suñu biir ndax mbooloo soixante personne lañu bu ñuy egsi mois de décembre c'est la ñu xamante ak Home Choice septembre décembre deux mille vingt et un ñu waxtaan ak ñoom. ñu andi ñu ay propositions yoo waxtaan boo xamante ne bii la mu jur mooy ñu mën a séq ak ñoom ba quatre millions par mois ah waaye si suñu biir am na ñu gis lu gën loolu comme ñun doon waxtaanee ay projet ñu ne déedéet nañ leen xool lu gën loolu bañ ko waxee ñu ñëpp ñu nangu ko tegaat projet boobu ci suuf di waxtaan ak si ñoom ci xalaat boobu muy projet de tête centre waxtaan woowu ñu yaatal ko. uti ji ay architecte uti ji ay financier ñi si gën a ràññeeku Babacar Ndoye directeur général bu bis sama doyen ak Souleymane Mbengue ñu installé benn comité ad hoc waxtaan si possibilité yi ñu am yëpp def ko mais ci biir waxtaan wi bi ñu leen xamalee tamit fi trésorerie wu APEX ci toll ñoom seen bopp dañu proposé yeneen ni xalaat jëm ci biir mais terewul architecte bi moom liggéey bi mu defoon dafa nekkoon un projet boo xam te si ça a demandé un financement de sept milliards loolu nag yombul si am comme gaaw mais terewul waxtaan ak suñu partenaire yi ñu proposé pour ñu mën ko réaliser mooy fokk ñu jot titre de propriété bi concerné zone économique bi nekk fii si yo si si moom fokk ñu am une garantie bokkoon na ci garantie yi ñu jël suñu loyer yëpp ñu domicilier ka ci banque bi nga xamante ne bii moom lañ doon waxtaan laaj nañ sax la signature du xalifa général des Layènes mais terewul ñun waxtaan ak ñoom bu baax ci biir waxtaan wi dem nañ ba proposer ñu donc benn prêt intermédier de trois cent millions buy permettre ñu dindi déficit bi am ci trésorerie bi réfectionner le flanc nord bu Dakar Chrono defaraat chaise bi daal di investir si leneen luy indi xaalis ñu dem ba déggoo si ak BDK mais ba nu eggee ci ñoom waxtaan la deux cent quatre-vingt-sept millions la ñu proposé avec des intérêts de quatre-vingt-dix millions yoo xam ne ñu ngi ko waroon a fay ci cinq ans ak conditions yi ma leen wax léegi signature xalifa bi ak domiciliation de tous les revenus en leur banque bi ñu eggee foofu nag dañu invité suñu partenaires financiers yi ñu ko seqaloon ñu ñëw si seede bi waxtaan ak ñoom xool ndax dinañ ko nangu am déet keroog Souleymane Mbengue moo ñëw def un exposé ñëpp déglu ko bi mu paree ñu waxtaan waxtaan yaatu rafetlu liggéey bañ fa liggéey waaye gis na jafe-jafe yooyu tax na ba projet boobu dañ koy teg ba ci kanam ñu xool yeneen si la seede bi nag ko léegi nanu ubbaku si yeneen i offre xool bu fa gën te mu gaaw. ñu ngi doon waxtaan ak Vivo énergie ci li jëm ci Senelec bi mu def ay proposition di waxtaan ak om Choice ci SDE bi mu dellu si waat seetlu ñu dem sax gis Libaas Mbengue bu maas waxtaan ak moom ci place boobu Libaas ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax moom bi mu yëgee ne amuñu titre de propriété ah si la ne dina jafeñ si moom mu engagé ko ci liggéey waaye nag mën na ànd ak ñun te jàppale ñu ba nu ñu mën a amee titre de propriété yooyu ah te tamit yombal na ko ba wax dëgg yàlla fexe na ba APEX ñu daje ak ay kilifa ay ministre waxtaane mbir moomu ba mu egg ci nopp président tey jii waxtaan yooyu mooy li jur ñu am possibilité di régulariser les titres de propriété bu cité APEX yi ah, ba nu fa jógee ku ñu ngi waxtaan ak Home Choice waxtaan bu sëni boo xam ne bii yaakaar xeer dal na ci ndax fi fi ñu toll ak ñoom macha allah Home Choice bi ñu dellu si ak moom dañu jël tamit ba tey sunu partenaires yooyu ak ñenn ci CD bi ak ci bureau bi ñuy waxtaan ak ñoom pour naka la ñuy bi ci benn contrat ndax APEX dafa baaxoo saa buy signé contrat ay conseillers am doon dénk ñu koy def. CD bi moo doon validé mooy validé waaye conseil borom xam-xam yi la kay jox ñoom ñoo koy gëstu ñoo koy togg ba mu ñor ñu doon ko siñe bii yaatal nañ ko dugal ko ci membre CD bi ñu ànd di ci waxtaan. bi ñu demee ba sori ji te wàlla woowu képp kuy membre daanaka membre yu bureau yëpp participer nañu ci débat boobu ndax dañ ko doon def par des mails interposés bu nit liiree am ci xalaat mu bind keneen xalaat bind ñu di ko def. ba am fu nu toll ñu jël lépp nag jébbal ko suñu avocat maître Sow waa om Thiès jébbal seen ba seen avocat ñaar ñoo ñu waxtaan ba finaliser ba ñu déggoo loolu mooy li waral si date bi ñu ko signé 7 mars 2023 ñu mën ko signé mais diggante foofu ma ñu jógee ak signature boobu eh, li fi xew si diggante bi mooy bu ñu xaymaawee proposition yooyu ñu wax ne moom lañ teg ne moom lañu bëgg muy call center bi tam mënul mënatu la nekk si biir CD bi dañu créé benn comité ak hoc boo xamante ne bi yàlla defoon na man mii maa ko jiite woon ma ànd si woon ak fukki nit yu bokk ci béréb yi waxtaan ci offre yooyu ñun ñoo waxtaan suñu biir ba gis ne home choice mën na faa nekk ndax seen eau ba fa nekkoon mi ngi doon fay deux millions sept cent home choice bi nu fay quatre millions huit cent soixante quatre mille francs CFA ndax boo ci dool waaye nag ça c'est TTC ak les taxes ordurières soo leen ci dindee nag le net c'est quatre millions ñu xam ne bi baax na ndax bu fa seen eau continué woon di nekk ba tey jii kon dañuy continuer di jot deux millions sept cent par mois te du tere ñu continuer di xalaat projet bale tey nag yàlla def na man nañ faa am lu ko ëpp bu baax te du ñu teree xalaat ëllëg loolu nag ñu ëpp ci seede bi dañ ko rafetlu waaye am na ay benn benn suñu biir ñoom toujours dañ doon gàttañlu si wàll woowu ah ñu jàpp nag ne ab entité bu mel ni APEX buy dox toujours dafay doxe consensus ak démocratie lu mu ci doon dañ koy teg ci table ñuy waxtaane ko ñu ëpp li ñu ànd moom la ñuy def lii bi nu ko waxtaanee au niveau du bureau waxtaan ko si commission ad hoc bi mu indi ko am na ñu doon def ay observation si bureau bi mais de comme bureau bi moom day exécuter mais c'est le CD qui valide si la ñu yóbbu ci CD bi si le mois d'août deux mille deux mille vingt deux ba fa defee nag nekkoon na waxtaan wu yàgg suñu biir ñu bari amoon nañ sax ay euh, hésitation mais bi ñu indee les conclusions du comité ad hoc ak leeral yi ci as mi dolli woon ñu bari sa saasa sa foofu la ñu ne lii de bu gënoon leer sunu bu bu leere woon yi sax lu jiitu tey kon joxe woon si na ko kon nag nañ nañ leen si ànd c'est lañ décidé woon pour def ay euh, élection comme gis nañ ne am na ñenn ñu nga xam seen position mais terewul. ñooñu sax dañu bañoon keroog ne kenn du voté yàlla def tey keroog ñenn si ñi nekk seede ku ci mel ni Sodoma rek ñu koy gërëm moo jógoon même di leen fàttali ne leen tey jii dafa mel ni ñi nga xam ne dañu am fuñ féete mënatuñoo jiite mbir mii nanu puus keneen dirige ko ndax ñu mën a def ay élection mu jàll moom walla keneen ay fot du moins eh, ba mujj gi yàlla dimbal ñu xaali mbeng moo mujjee diriger vote bi ñu doon def ña desoon ci salle bi ndax ñu ci bari eh, réunion la boo xam ne mu ngi tàmbale woon 17h mu ngi joxe 23h30 matoon nañ 23 personnes wala 30 personnes mais 3 personnes ñoo nu àndul woon ci ñu signé contrat bi bés boobu la ñu validé pour que ñu signé contrat bi c'est le président amee sañ-sañ pour que ñu wax homme choice mën nañ ñun ak yéen mën nañu signé terewul nag. bés bi nga xamante ne bi c'est la ñuy signé contrat bi ñu ñëw ñu oo kilifa yi ñu ñëw ñu ngi gërëm bu baax jara seen yi moo ko jiite woon dafa ñëwaat ak ñoom imam Sall Cheikh ñoom saltige ëmma euh, le maire Issa Ndiaye Mamadou Mbengue saltige ah keroog yooju ñu ñoo suñu ay gan terewul ñi nga xam ne ñu ngi suñu biir te ànduñ si loolu ñëw nañ pour wax kilifa yi ñu bañ a signé contrat bi ndax ñoom ànduñ si ak te wax seeni raison xañuñu leen ko nag dañ leen bàyyi keroog ñoom ñu taxaw wax seen xalaat bu baax ci li tax ñoom jàpp ne duñ ko signé mais bi ñu paree ñu nit jóg nañu def chronologie bi expliqué leen li xew lépp ak li tax ñu wakkaa signé bi ñu paree kilifa yi seen bopp ñoo jóg wax ne ah yéen de xanaa yéex a wax waaye li ngeen wax lu leer na kon nag nanu siñe yéen xale yi bal leen ñu ngeen may ñu ñu signé ndax yoof sax fu nu dajee nekkoon téeméeri nit di waxtaan bu nu demee ba ñett des fa la nu décidé mooy am te lii xale yi wax lu leer la lu baax la loolu moo ñu may keroog si bés ba ñoom ñu teew ñu def signature ba ñu ko signé nag si condition yi bokkoon na ci ñoom dinañu def une avance de cinquante millions buy permettre ñu defar suñu trésorerie bi si bés boobu lañ ko joxe te defe naa ni mu ci image du ma wax lépp ndax li ci des sama mbokk yi la ñu ko dénk wante da jàngat bu ndaw bi ma ciy dolli rek mooy ne dañuy nekk dëkk boo xam ne ñu di ay bokk lañ apex gi nekk teraanga bu yàlla yekkal yoof su ko nekkul woon mag ñi duñu ko sampal ba des ñaan giñ ci def moo tax lu nekk dina ko song waaye dafay des ñun ñii apex dinañ survivre feneen lu koy bàyyi parce que njariñ la day change tey ñu nekk fi di liggéeyal yoof ñuy mbokk yi nen nag te lépp mën nañ kaa régler ci biir waxtaan nit nag bu demee ba jàppare instance yi nekk yoof mënuñoo régler problème am ba mu dem tribunal defe naa kon mën na xaar ba tribunal dogal lu mu am mu jël waaye bu dellusiwaatee di ñëwaat di oo ñin ñi ñu génn ñi mu wóoluwul woon pour ñu génn wax ci kon la muy xaar tribunal doyatu ko kon moom xamatul fu mu jëm mbokk yi ak kilifa yi moo bëgg ñu cindikoo asik bokk ñu xam ne ñi fi nekk ñun ñëpp dëkk bi la ñuy liggéeyal li fi nekk pour askan wi te ñoom la ñu toppatoo maa ngi leen di gërëm di leen sant ci wax ji di ñaan yàlla mu jubal leen lépp lu si dëng rek maa ngi koy jégalu yàlla na yàlla defal na jàmm defal na sutura yàlla na yàlla sama